professeur Omar Ndoye euh, Mangi ngi jàngale université de Dakar dit liggéey tamit euh, si euh, service de psychiatrie au hôpital Fan. mais ce ko waral ci sama c'est que. Euh, man nañ ko expliquer ci yoon yu bare maanaam lu tax nit di dem ba xalaat ne moom war na mën a sàcc xale parce que xale dafa doon loo xam ne euh, lu ñu war a aar la lu ñu war a gunge euh, nit ñi dañuy sëy pour am doom booy sëy ngay nga war a am doom da ngay xalaat lu ne nga ne doom jooju bëgg naa mu màgg bëgg naa mu tekki bëgg naa mu doon lii bëgg naa mu nekk nii donc li ñuy wax fantasme euh, wéyjur yi dañuy am xalaat bu xóot bu rafet ci seen doom jooju ñu koy gunge di ko gunge di ko yar pour ëg ci ci objectif boobu donc duñu xalaat mug ne kooku war na mën a dem yoonam war nañu ko mën a jël war nañ ko mën a sàcc alors nit kiy sàcc dafay doon mag mag jooju dafa doon koo xam ne am na doom ou bien amul doom mais lan mooy tax ba benn bés mu yeewu ne ah war naa sàcc xale loolu bu amee mën nañ ko teg ci firnde yu bare benn man na doon que nit kooku si niñ koy expliquer ñun moom dafa am ay rapport ci boppam yu xala doy war ak xale maanaam bi mu newee xale moom ci boppam amoon na ay jafe-jafe ak mag pour bañ a wax ak waajuram mais en général ay waajuram la parce que xam nañ ne xale bu juddoo dafa am ay yoon yoo xam ne war na ci jaar bu nekkee ndaw lu tuuti euh, bu am bu amagul at bu amee ñaari at bu amee ñetti at ñeenti at yëpp dafa am ay yoon yoon yoo xam ne xale dafay jaar xale yëpp ñoo fay jaar ndëkk te lii gën mooy xale yooyu jaar ci ak seen ñaari waajur des fois mais bu dul ñaari wayjur tam mën nañ ci jaar jaar bu rafet ak benn wayjur mais ci yoon yooyu nag bu amee yoo xam ne dafa xal a manqué mbaate yoo xam ne jubul woon comme ni mu waroon a jube xale boobu bu dafay màggale loolu loolu daf koy topp maanaam juróom benni at juróomi at juróom benni at yu jëkk yi dafa doon lu am solo ci dundi doomu aadama dañuy wax sax ne ñun suñu nekki ni wàllu sëy suñu néegu sëy si juróom benni at yu jëkk yooyu lañ ko togge yu bare foofu lañ ko togge dañuy wax ne sax boo amee juróom benni at rek parce que c'est trop tard lépp togg nañ ko bu pare donc kooku problème yi mu am ci jamono jooju ak rapport bi mu am ak waajuram bu màggee loolu mën na ko puus ba mu am yenn demin yoo xam ne du demin yu rafet ak xale mais loolu du ne xale boobu la koy def en dana ko def xale boobu physiquement mais problème baa ci bopp bi li tax muy sàcc xale bi u dem di ko rey yépp ay message la ay euh, problème yoo xam ne dundoon na ko xi way juróom dafa man ni dafay fayu xi way juróom pour wax leen ne yéen li lii yéen a ko def donc loolu dafay doon ci moom loo xam ne war na ko def c'est-à-dire parce que xalem moo demewuloon ni mu waroon demee moo tax moom mu am problème ak xale loolu moo tax mu am problème ak nekkin nam ak xale loolu moo tax muy dem di jël xale bi di ko sàcc dem ba di ko rey loolu si wàllu psychologie mën nañ ko expliquer mën na am te beneen demin ci wàllu sàcc bi maanaam ñoo xam ne mooy euh, la plupart des gens rek au Sénégal loolu lañuy wax maanaam ni wàllu xaalis la maanaam koo xam ne dafa nekk ci ñàkk parce que dañ nekk si jamono joo xam ne ku si ne da ngay bëgg am am am bi dafa am solo ku nekk ñàkk nag ñu nekk yow ah ñu ne soxla nañ benn xale parce que ñooñu ñi koy commandité am na lu ñu ci namm am na lu ñu ci bëgg def bu boobaa ñu fey ko cinquante mille baati cent mille baati cinq cent mille lu mu mënta doon rek nekk indi ñu xale moom sax du xam en général ñooñu lu ñuy doyee xale bi mais comme dañ ko ko santé effectivement mu dem ñu fay ko mu sàcc xale bi yóbbul leen loolu ute naax ñiy sàcc dem di rey ñooñu dañ leen sante rek. ñu sàcc xale dem yóbbu ko parce que dañ si gis am-am mais xalaatuñu sax ne xale bi danañ ko rey mbaate danañ ko mettital sàcc bi rek lañ ko sante donc mu sàcc dem am na beneen na boo xam ne itam troisième fois boo xam ne mën na doon ñoo xam ne dañu am ay problème ak seen dëkkandoo maanaam dëkkandoo yi ñu foog ne dëkkandoo yi dañ leen di jaay dara dañ leen di jaay daraja dañ leen di lii et cetera

parce que comme ni ma ko waxee sa njëlbéen ga xale normalement dañ ko war a aar gunge ko xale boo xamee ne boo ko sàccee yóbbu ko dafay indi ay perturbations ci moom daf koy sonnal psychologiquement dafay doon loo xam ne xale bu demee du gisati kenn ku mu xam du gisati juróom du gisati kenn loolu daf koy indil benn traumatisme boo xam ne benn jafe-jafe boo xam ne jafe-jafe bu am solo la te ku xam loolu normalement doo dem di sàcc xale. donc toujours dañ man dama effectivement day doon effectivement problème ci et puis li ñu gis aussi ci rek gis légui dañuy xalé ba ray mais en dehors de lolo, est-ce que couluche dina mëna ray nit au moment des faits. Oui, mais xamoo loolu euh, ñun nañu parce que tay ji nit bu kenn am doom ju jigéen ju am juróom juróomi at juróomi at nga fekk góor ci kawam mu koy violé mu koy sàkku muy man muy keneen yaakaar naa ne man nga rey loolu euh, du ma wax ne nous sommes tous des des <laughs> des assassins en puissance loolu mais dafa am foo xam ne bu boo fa tolloo ci instant boobu man nga rey ci si si ci saa si c'est-à-dire que loolu du loo xam ne dañ koy préméditer loo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy fexe dañ koy préparer déedéet ñiy rey nag Sénégal yi gis nii yaakaar naa ne ñu si barey pour ne pas dire que ñooñu ñëpp presque duggul ci cadre boobu dafa doon ñoo xam ne dañuy jël xale sàcc ko yóbbu ko si bâtiment bi pare mbaati dugal ko ci oto yóbbu ko faneen rey ko rendi ko mais loolu. man dama jàpp en tant que psychologue que ñooñu wéruñu ñiy rey parce que dara mënu ko justifier parce que yow mii wax ak man wër na ma ne ku la joxoon un milliard si xaalis doo tëral xale di ko rey di ko préparer sàcc ko yóbbu ko ren di ko teg paaka ren di ko xamoo xale mën nga ko rey par étouffement man nga ko xoj mën nga ko teg bakkenam mën nga ko liiwal dara mu dee mais defuloo loolu da nga jël paaka tëral ko teg ci lii bi mu mel di xar xaru tabaski loolu dañu nekk ci cadre boo xam ne nit kooku wérul ku wér du def loolu li may wax dëgg mooy que souvent day doon ñoo xam ne dañuy dem nekk nit njaay bu ñu waxee ñu ne ah kii de foog ñu ne moom la kii eh, il n'était pas capable de ça wala woon et mais dafa am benn fond bu fa ne fond boobu ndëg mooy mu voilà loolu mooy feebar bi damay wax rek ne souvent boo jëlee euh, ban jaxase kaax ndox def ko ci bouteille xam nga day jaxase mais day dema dema dem ba taa ban bi nekk ci suuf nga gis ndox mi nekk ci kaw mais bu ñu ko yëngalee rek yëpp mélangé waat ban bi nag mooy fond bi may wax feebar bi moo nekk foofu tekka tekkaaral nit ki di dem ak ñëw di liggéey di def di def leneen mais xaalis mën na ko yëngal ñoo un facteur favorisant mën nañ ñëw proposer que xaalis baati proposer que leneen et cetera rek loolu yëngatuwaat ndëg mu dem bu rey mais ku def loolu man gëm naa ne wéruloo da dañ la war a faj. waaw loolu xamoo pour éviter rayeex sàcc yi euh, dafa doon lu doy war maanaam dañu war a continuer di waxtaan ci biir njaboot gi dañu war a continuer di waxtaan ak suñuy doom yi dañu war a continuer di waxtaan ak population bi te tamit li ci am man je crois que dafa am ay signaux forts yoo xam ne waroon na mën a am ci Sénégal damay profiter ci seen euh, antenne bi pour def un appel au chef de l'État président Macky Sall ak au premier ministre parce que rey bi mu amee

danañ gis ne bu amee euh, cousin wu benn politicien mbokam bu dee autorité état yëpp dañuy jóg dem jaale ko lii nag dafa concerner Sénégal gi yëpp te yaakaar naa ne waroon na doon lu rëy loo xam ne état bi dañuy déplacé wu jóg ne dem parce que lu itam wax loolu par rapport à sa question mooy loolu day wane ne état bi jóg na taxaw na jàppale ne parents yi comme ni nga ko waxee caaraan yi parents yi sax loolu du tax ñu fàtte de mais dañ doon benn dëfal boo xam ne danañ gis ni Sénégal jog na du voisins yi rek du dëkkandoo yi mais état bi si boppam moo jog ñëw sàmm leen dëfal leen jaale leen ba pare wax leen ne nag taxaw nañu pour loolu bañ amati Sénégal je crois que loolu de manière très forte waroon nañ ko mën a am mu taxaw ci Sénégal ma profiter seen antenne bi pour lancer appel boobu il n'est jamais yeexul ma ñaan chef de l'État mu jóg

mais xamoo mooy li ma la wax rek ne euh, li ma doon wax sànq ne boo amee doom da ngay am yaakaar da ngay fixer ay yaakaar yu bare ci loolu kooku nag bu ñu ko jëlee sàcc ko yóbbu ko yow sa yaakaar dana tas mais itam da ngay xalaat sa doom bi nu ñu ko doon mettital mettit boobu mooy indi problème da ngay dem ba yow def lu ñuy wax une autoculpabilisation maanaam da ngay dem ba ne man man la maa ko aarul su fekkee ne defoon naa nii mbaati ma def ko nii kenn du ko sàcc bu ma defoon ni def nii peut-être que kenn du ko sàcc ba di ko rey da nga day dem yow sa bopp sax ne man maa man waajur wi defuma li ma waroon a def moo tax sama doom ñu def ko loolu parce que doomu ñeneen yi jëluñu leen donc da ngay dem ba yow am nga ay problème yoo xam ne daatoo man nelaw boo nelawee da ngay gént gént yi ñuul euh, jaaxle par rapport ak yeneen doom yi et cetera daatoo wóolu sa bopp da ngay dugg ci dépression boo xam ne da ngay dem a dem yow ba ma ni da ngay da ngay xaru sa bopp maanaam daatoo bëgg dara ci àddina te loolu loolu loolu lu doy war la moo tax ñooñu il faut ñu gunge leen il faut ñu gunge leen mais ñi leen di gunge itam mooy état bi loolu moo tax ma doon lancer appel boobu pour que état bi jóg taxaw wax que te loolu itam ci li koy dindi la parce que nañ xam ne gis nañ ko ci yeneen réew yi gis nañ en en France par exemple euh, le président Macron bu jóg dem ci affaire yu demee noonu. donc loolu la je crois il faut que état bi wane ne déedéet du ay dëj dëji politicien rek boo tax may jóg déedéet mais lii dafa doon loo xam ne dafa amul woon Sénégal am bare fi du ay wax rek ci rajoo yooyu dañu war a dem effectivement état bi jóg taxaw ànd ak télévision yépp ak rajo yépp dem wane ne effectivement état bi taxaw na pour jàppale parents yi mais pour xeex loolu aussi